di tàmbali sunu nuyoo ak sunu ziar di ñaanal alxalifatu am bi tarixati muridiyya Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd wér noonu leen koy ñaanalee seen am di moom benn Fall di ko ñaanal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gis nag mooy mbooloo bi nga xamante ni mooy mbooloo Mbësu Xasida Sicap di mbooloo bi nga xamante ni moom la Sëriñ Daam Mbàkke jiite mbooloo bi nag ni mu tëddee mooy ci ay góor ak ay soxna ànd kook mbooleem daara yëpp ak it mboolem murid yi nga xamante ni ñoo féetewoo Sicap bi ak li ko wër bés bi nag amoon na daaw ren nag mooy deuxième édition bi nga xamante ne dañ ci namaat santaat sëriñ bi ci xasida yi ci alxuraanu karim bernde gi ak zikrullahi mooy li nga xamante ne mooy am ci bës bi ngir nag yaatalu bës bi jëmmi bës bi ki nga xamante ni moo yore wàllum organisation bi di Diourine Fodé nekk Diourine daara jaalibatu maraaxib bu Liberté dina jël kàddu bu noppee it ki nga xamante ni mooy Diourine Omar nekk daara xidmatul xadim bu Mermoz moom moo yore wàllum culturel bi di jël kàddu bu noppee it seen daam bi nga xamante ni mooy Diourine liggéey bi tënk liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. salaamaaleykum mbokku taalibe yi mbokku jullit yi ñuy siyaar du rafetlu jotaay bi di siyaar juriñ jotaay bi mi sëñ Daam Mbàkke ba nga xamante ne dafa demoon Touba jot ndigal si sëñ Muntaxa mooy bésu xasida bi nga xamante ne moom la ñuy taxawal ren mi deuxième édition mi kuréel yi nekk liberté 1 ba liberté 6 mbooloom juriñ daara yëpp ñu ànd ko ànd ak ñun si liggéey bi mi organisation nag dañ ko def ay pàcc ren mi mboolum juriñ daara yëpp kenn ku ne am na pàcc boo xamante ne yow lañ ko jox ngir nga saytu ko ak sa mbooloo ngir ñu ànd ko liggéey ko ren noonu lañ doxale ni ñi ñaan Serigne Touba bi nga xamante ne dara teewu ko yal nañu Serigne def ak jàppandi ñu si woo mbokku taalibe yi mbokku jullit yi fu mu waaye mu ne ne mi murit ku dul murit ñëpp ñu leen di woo si bés bi ñu ñëw sant Serigne Touba si xasida si berne ak si Sam Fall jërëjëf. aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa rahmatulah ñu ngi ziar mbokk taayil bi yëpp di jiital ci nuyoo beeg ziar gi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu gudd fan lool te ànd ak di ci toftal njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp ak njaboot sëriñ Tuubaa gi yëpp gannaaw lool dañuy jiital ci nuyo bi fii ci mbooloo mi suñu kilifa gi di sëriñ Dame Mbàkke di jëwriñu liggéey bi ngir mu jottale lu nuyoo bi ci mbokk taalibe yëpp comme ni ko mbokk taalibe yëpp waxee bés bi nag bésu xasida moom foo ko dégg xam ne culturel bokk na ci lu koy taaral culturel nag bi lañ ci tënk mooy alxuraanul karim moom lañ ciy jiital ay kaamil yi nga xamante ne am nañ yéene wàccee ko fi teg ci ay limu xasida yi nga xamante ne am nañu yéene ñu duruus ko gannaaw loolu itam dafa am yeneen yi nga xam ne mooy taaral bés bi lu ci mel ni njàngum kuréel ak njàngum rajas kon boog ñu ngi ciy woo mbokk taayil bi yëpp rawatina képp kuy jànkat xasida ñu ngi lay woo ci bés bi nga xam ne bés bi sa bésug bopp la gannaaw bañ ci amee ndigal bésug murit yëpp la ñu ngi ciy woo jëwrin yëpp rawatina ak képp ku nekk ci culturel ak daara joo mënti doon mu tàmbalee liberté 1 ba ñu ngi ciy woo ñëpp ngir ñu ñëw ñu ànd liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wa inni uhiisuha bika wa surriyataha min asheytaani irajim rabbi aouzu bika min hamashati shayatin wa aouzu bika rabbi an yaxduruun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngi sant cheikh ahmadou bamba xaadim rasul di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa mbàkke xalifa général de murit ñu fi nekkal sëriñ tuuba suñu boroom gën ko dëbb kàttan ba naal yim naal ci liggéeyu sëriñ tubaab bi yëpp mu matal ko te naalaat yeneen dañ ànd kook moom te mu fekk lépp te tal ko ngi sant ak nuyu mbokki taalibe yëpp moo xam góor ñi lañu moo xam jigéen ñi lañu di rafetlu pas-pas yi ak taxawaay yi ci dem siyaare ji ki nga xam ne moom moo fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne liggéey bi tey moom lañ koy defal bi yàlla dogalee ñu dem doon sàkku ñaan ak ndigal ci bis bi mu am mbégte lool ci bis bi maanaam wax sax te bis bi bu njegesee nañ ko ko fàttale ngir ngir bàyyi xel gum bàyyi xel bis bi ndax dañ ko wax li tax a jóg bis bi ak li nga xam ne moo sabab bis bi muy dañoo fas yéene bis bi bisub xasida la boo xam ne dañ ciy sant Serigne Touba ci alxuraan ak xasida sababu bis bi mooy li nga xam ne moom mooy itteem yëpp muy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu mooy ñun ñëpp ñu mbooloondoo ñëpp ci buumu yàlla gi te buñ tàqalikoo ndax xam na ne mbooloo mooy doole te bi mu ñëwee ba léegi day nos ak sof rek ndax li naroon na li niru woon lu yàqu lépp defaraat na ko lu niru woon lu tàqalikoo yëpp defaraat na ko ba rafet lépp nag mu dellu ca bayitu Cheikh Ahmadou Bamba ci matlabu sifaay mm-hmm. ñu doon wax wajxal qulubana ala tawaadudi mm-hmm. wala tanaasuin wala taxaasudi mm-hmm. wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaxudin wala tanaafuri hatta nasira muslimina xaasihin mu ne na nga def xol yi ñu nekk benn buñ di xiiroo buñ di ŋaayoo buñ di bañante buñ di dawante ku ci nekk rek ni nga jàppee sa moroom ak li nga yéene sa sa bopp na nga ko yéene sa morom loolu nag moo doon ittey sëriñ bi bi nga xamee ne dem nañ ba leeral ko jubluwaay bi ci bis bi mu am ci mbégte lool xamal ñu ne itam bis bi moom bisam la te moom lañ koy defal moom ñor gu ko bis bi ñor ak bàyyi xel gu mu bàyyi xel bis bi moo tax mu ne bu jegesee nañ ko ko fàttali ndax ku ne xam na ne lii ñu def fii lépp moom lañ koy defal ba tax na loolu moom ñu ngi ciy sant mbokki taaliba yëpp ci pas-pas biñ am bañ àndandoo dem siyaare ji sëriñ bi leeral ko li nga xam ne mooy bis bi ak jubluwaay bi sëriñ bi bég ci lool nag moom ñaan ci ñaan ci bu baax a baax nag ñaan ci bu baax a baax ne bu bis bi jege see daal nañ ko ko fàttali ndax moom bis bi day bisam te da koo bàyyi xel lool sax wax dëgg yàlla moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu